Ahmadu xayru naas imaamul anbiyaa yi gaañi xam nañu la xayru naas awuusu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yaswa qawli amma baad alhamdulilahi haddaani bi ma ilaa tariqatu cheikh abou mouhamad abdulqadir jilani bi cheikhina cheikh saadu nabihi xayru sulaajati waji ani nabiyu nabi alhashimi almudari asalaamualeykum mbokki àdduna asalaamualeykum mbokki sénégal waaye asalaamualeykum mbokki jullit yi ni ñu ko baaxoo rek di ko def saa su nekk di ñëwati di teewati seen émission bu màgg bii nga xamante ne nii moom lañ leen di indil saa su nekk mu di émission royal ci moom lu xew wala lu bëgg a xew baa dépp loo xamante ni royuwaay la rek ci doomu aadama ñu indi ko tegal leen ko dégtal leen ko mbokk yi ngeen xame ko comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tabaarakallaahu tey nag ñu taxawee fi nga xamante ni moo di tiis bu mag nga xamante ni moom la Sénégal am moom la ummatul islam am waaye daal moom la yoonu mu am tabaarakallaahu mu di kanam muy le deuxième xalif ci sëtu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul radiyallahu taala anhu mu di sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke tey jii nag ñu dalal fi ki nga xamante ni nii moo di jëwriñ universel di sëriñ Saliou Mané fa tabaarakallaahu waaye ñu ràññee ci ëtt ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune Mame Bamba Thiam mu baax mi tabaarakallaahu mi nga xamante ni sëriñ Saliou rek moo ko fa tegal ñu koy xoolee ba tax na rek foofu lay jaaree ak moom ci waxtaan wi ci li nga xamante ni moo di hommage bi ñuy defar ki nga xamante ni nii moo suñu kilifa bu baax boobu di sëñ Sidi Maxtaar sëriñ Saliou maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sama jël maa ngi lay siyaare euh, di tàmbale sama nuyu rek di wax jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te gën a wér maa ngi jiital sama nuyoo di ko teg ci loxo njabootam mu tedd bi te it di siyaare seen jullit yi nekk ci réew mi waaye seen yoonu murit mboolem seen taalibe yi waaye tamit jërëjëf Serigne Saliou tey nag ñu toogee fii ki nga xamante ni nii macha allah moo di sëñ Sidi Makhtar Mbacke dama la wax léegi sama biir ubbite nii sëñ Sidi Makhtar Mbacke mooy la deuxième xalif ci sëtu Cheikh Ahmadou Bamba te nga méngóog sëriñ bàmba jël léppam méngale ko ci lislaam ci lan ci yàlla boroomam ci lan ci sunnatu muhammad ci lan ci li nga xamante ni moo di bindu àdduna waaye ci lan mooy ci lislaam gi ñuy dund rawatina li nga xamante ni moom la gëmoon muy xaadimu rasul gi nekkoon ci moom Serigne Bamba Serigne Touba ki nga xamante ni mooy deuxième xalifaam ci sëtam boobu muy sëñ Sidi Maxtaar boo xoolee lu yàlla bind ñaar la kaw suuf loxo tànk wala boog lépp lu yàlla bind rek ñaar la ci def moom mu méngoog ñaar googu moom sëñ Sidi Maxtaar Serigne Bamba créé moo di Touba sanc ko fa tabaarakallaahu waaye ki nga xamante ni bi mu génnee àdduna mooy première sëtam ci wàllu xilaafaam yi nga xamante ni moom la doon kooku mooy Mamadou Moustapha Mbacké Mamadou Moustapha Mbacké mi ngi mi ngi juddu moom 1888 la juddu waaye mi ngi jël xilaafa gi ci baayam Cheikh Ahmadou Bamba 1927 sëñ Mamadou Moustapha nekk na ci xalifa gi ba 1945 moom mi nga xamante ni moom moo di Mamadou Moustapha Mbacké mi nga xamante ni mooy le premier xalif de Cheikh Ahmadou Bamba waaye di première doomam bi nga xamante ni moom moo ko wuutu ci xilaafa gi mi ngi sanc li nga xamante ni moo di jumaa Touba gi nga xamante ni bokk na ci li nga xamante ni tey boo demee Touba Serigne Saliou bokk na ci œuvre Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul li nga xamante ni nii mooy mayam gi mu bàyyi ci fii ci Touba bokk na ci jumaa ji waaye moom mi ngi ko rëdd 1925 moo sëñ Modou Moustapha moo Modou Moustapha moomu bi mu génnee àdduna 1945 ki ko wutu moo di Serigne Fallou Mbacké te moo Serigne Fallou Mbacké ñoo bokk benn at bu ñu judd muy 1888 ci atum olof boo ko jàppee mooy junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci la judd moom it Serigne Fallou Mbacké mi nga xamante mooy le deuxième xalif di Cheikh Ahmadou Bamba moo Serigne Modou Moustapha Mbacké ñu bokk benn at bu ñu juddoo moom mi ngi jël xalifa gi ci ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Moustapha 1945 ci ko jël di ànd ak moom di ànd ak moom di liggéeyal baayam yokk jumaa ak yeneen yoo xamante ni moom Serigne Fallou def def na ko fii nga xamante ni moo di tuubaa ba tax na sax juróom-ñaari Serigne Fallou tey moom la ñëpp di fajee aajo mi ngi génn àdduna 1968 moom Serigne Fallou Mbacke waaye Serigne fàllu Mbacke bi muy génn àdduna mi ngi ci jox ki nga xamante ni moo di sëñ Abdoulahat Mbacke sëñ Abdoulahat Mbacke moom mi ngi mi ngi jël xalifa gi ci ki nga xamante ni nii moo di Serigne Fallou Mbacke mi ngi ko jël ci mille 1900 14 la jël xalifa gi waaye mi ngi génn àdduna 1988 ki nga xamante ni nii fa tabaarakallaahu moo di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo di doomu Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xamante ni fa tabaarakallaahu ñoom ñoo fi nekkoon waaye moom bi mu génn àdduna moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké jël na xalifa gi bàyyi ko ki nga xamante ni moo di Cheikh Abdou Khadre Mbacké mi judd 1915 mi ngi ko jël ci loxoom 1990 la Cheikh Abdou Cheikh Abdou Khadre Mbacké imaamu Touba jël xalifa gi Cheikh Abdou génn àdduna moom mi nga xamante ni fa tabaarakallaahu moo di Cheikh Abdou Khadre 1914 la judd ñu baal ma waaye mi ngi génn mi ngi jël xalifa gi 1989 ci ki nga xamante ni moo di sëñ Abdou Lahad bi sëñ Abdou Lahad génnee àdduna moom moom la ko ko jox waaye moom bi mu génnee àdduna mi ngi ko génne 1990 jël xalifa gi jox ko nag ki nga xamante ni moo di sëriñ Saliou Baye sëriñ Cheikh borom jàppandal ak ndookaan daara njulul mi ngi judd ci 1915. moom ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Abdou Khader Mbacke benn at la ñu rawantee ci juddu mbokk yi waaye moom mi nga xamante ni moo di Serigne Saliou mi ngi judd 1915 jël xilaafa gi ci ki nga xamante ni nii moo di Cheikh Abdou Khader Mbacke imaamu Touba 1990 dem ak ñun di dund ak ñun di ko rafetal macha allah ba lim fi def lépp tey jii nii ku mel ni Cheikh boo ko xoolee xam ni Serigne Saliou la Serigne Bamba ni woon bu may jur doom Saliou taxul mooy man maay moom kon feeñ na ci moom ci liggéeyam ci léppam fa tabaarakallaahu mbokk yi kooku mu ngi bàyyi àdduna génn ko 19 2002 2002 googu nag ah ci la nga xamante ni mooy juróomi. ponk yi nga xamante ni mooy doomu Cheikhul Khadim yi jeex ci àdduna mu ñu des ak nag sët yu baax yi waaye mbokk yi bu ñu fàtte ni yàlla bi muy wàcce lislaam waxtu yu juróom la fi bàyyi waxtu yu juróom yooyu dafa méngoog sóoróoru juróom ya ca Touba sóoróoru juróom yooyu ya ca Touba bu ci nekk rek benn boo ci jàpp rek dafa méngoog benn xalifa ci li nga xamante ni moo di doomu Cheikhul Khadim yi fa tabaarakallaahu waaye bi loolu weesoo ba tey ni si sëñ Sidi Maxtaar la ñuy waxtaane mu jël xilaafa gi 2007 la ko sëñ Sidi Maxtaar fa tabaarakallaahu 2007 la ko jël ci ki nga xamante ni nii moo di Serigne Saliou Mbacke ñu baal ma waaye Serigne Saliou Mbacke moom it fa tabaarakallaahu mi ngi génn àdduna 2007 jox ko Alaaji Baara mi nga xamante nii mooy taawu Serigne Fallou Mbacke mi nga xamante ni mooy le premier sëtu Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni nii moo ràngoo ñaari xalifa yi. ñaari xalifa yooyu mbokk yi mooy kan mooy xalifa Serigne Fallou la toogee woon moom Alaaji Baara waaye xalifa maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul la toogee woon Serigne Baara mu ngi jël xalifa gi 2007 ci Serigne u baayam bu baax ba mbokk yi mi ngi génn àdduna 2010 ci la dem nag jox ko ki nga xamante ni nii moom la ñuy ràndal hommage tey mu di kan seen Sidi Maxtaar Mbàkke surtout Alaaji Baara mu baax mi borom kàddu gi fa tabaarakallaahu ngi ko jël ci moom 2010 mbokk yi di dem ak ñun di yeggali di matale ba tey jii nii ñaari sët yi nga xamante ni nii ñoo mujj tey jii nii fa tabaarakallaahu ci li nga xamante ni nii moo di njabootu cheikhul xadim fa tabaarakallaahu mu di sëriñ baara mi ma la wax léegi ak moom sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mu yokk ca jumaa ji ñaari sóoroon muy asamaani ñaar juróom-ñaar mu di suufi juróom-ñaar mbokk yi nga xool ni kon adduna asamaani juróom-ñaar a ko téye suufi juróom-ñaar a ko téye kon sëñ Sidi Maxtaar ak Serigne Bamba méngoole na ko ci li nga xamante ni moo di cë cëriñ ci diine ci lislaam kon daal tarixatu mouridisme mooy loolu mbokk yi tabaarakallaahu Serigne Bamba loolu la ñu indi woon mooy lépp li ñuy dund njabootam da leen a méngale ci lislaam ci adduna ci lépp ni yàlla taxiñe mbokk yi ba tax na sëñ Sidi Maxtaar mu génn adduna waaye tey diini mu bàyyi fi rakkam ju baax yi nga xamante ni moo moo ko fi wutu yàlla yàlla yokki leeram tabaaraka tabarakallah te taas ñu ci barkeem kii nga xamante ni moo ko fi wuutu fa tabarakallahu yàlla na ko fi yàlla bàyyi macha allah ñu dund ak moom di dund moom ba di ko weeri weer di ko wari dañuy dem rek ci jëwriñ universel ki nga xamante ni nii moo di Serigne Saliou Mané Serigne Saliou Mané nga gis ni ma la ko xamale ni nga xamante ni xamalee naa ko askan wi nga gis ni mu tëddee ana lan moo ci sa xalaat ak sa contribution loo ñu ciy wax euh, jërëjëfati Serigne Saliou euh, xanaa rek di sant Serigne bi Sëñ Tuubaa daf ko jàngal nangu dogal murit mooy koo xam ni lépp lu yàlla dogal daf koy nangu ndax kat loolu sax mooy lislaam nga xam ni Sëñ Tuubaa moom wooteem bi daa génnul benn yoon lislaam ab jullit di naan jullit la day fekk mu mën a nangu dogal mm. li xew nag daana dañuy wax tiis la mm. waaye ñun ay jullit lañu ay murit lañu mm. dañuy nangu dogal suñu borom suñu borom moom la soob mu def lu ko soob tey jii moom la soob mu jëlee fi sunu sang bu tedd bii mm-hmm. nga xam ni euh, mooy sunu xalif bu tedd bii ci mm-hmm. sëñ Sidi Maxtaar nga xam ni moom kuy wax ci moom rek mm-hmm. moom jëmmum ji wax ma sax moom kàddoon jëm ci waxtaanam ci seen Tuubaa wala jëm ci waxtaanam ci lislaam waaye jëmmum ji rek boo ko xoolee sa xel delluwaat ci sa borom te loolu wax dëgg yàlla loolu rek moo am solo ndax woote bii nga xam ne Sëñ moom la woote loolu rek la wund mm. mooy delloo jàmm ci seen borom moom jëmmam ji rek mm. soo ko xoolee rek sa xel yëpp delluwaat ci sa borom wooteem nga xam ne ci li mën a mën a mën a wax ci moom mm. mënuñu wax lépp sax ci moom ndax du ku du du ku ñu mën a xam lépp ci moom waaye lu ñu mën a wax ci as tuut ci moom rek mooy day jëm joo xam ne saa bu yëkkatee kàddoom nga gisaat yow jàmm nan ngay defaraatee sa toogaay. macha allah saa bu yëkkatee kàddoom mu néew nga xam ni kàddoom ndeysaan bëriwaa na dana néew waaye saa bu waxee rek nga defaraat sa toogaay ngir cofeelam ca boromam. Hmm. ngir cofeelam ci Serigne Touba. Hmm. dëgg yàlla euh, dañ naan ñàkk nañu waaye nag dañuy sant suñu borom ndax suñu borom moom lu ko sopp lay def te ñun ay murit la dañ noo yar ci loolu. Hmm. murit moom mooy ki nga xam ne dañ koo yar ci. mu nangu dogal suñu borom yi yàlla nag Sénégal réew mi day dañuy faral suñu borom saa bu dogalee ñu mel ni dañ koy tiisal waaye lii ay dogal suñu borom la dañuy sant waaw dañuy sant ndax moom kàddoom man de démb ba léegi euh, lu may fàttali rek mooy kàddoom bu mu dégg dafa may ñaaxaat ci sopp sama borom kàddoom bu mu dégg daf may ñaaxaat ci bëggaat suñu borom gën koo dëgg ma laat soppaat sëriñ bi nekkaat ci moom ba faw mm. waaw ma lay delluwaat kàddu bi jërëjëf jëwriñ universel euh, macha allah sa contribution am na solo waaye nga gis ni moom sëñ si Maxtaar bi nga xamante ni fa tabaarakallah tey moom la ñuy waxtaanee bi mu njëkkee ñëw ci réew li mu njëkk a yëkkati mooy istamu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy kaay leen ñu booloo mooy kaay leen ànd mooy kaay leen ñu toog ci li nga xamante ni moo di ndabul islam gi jëlee na fi jàkkay murid jëlee na fi jàkkay tiijaan jëlee na fi jàkkay ibaadu indi li nga xamante ni moo di néegu yàlla suñu borom bi waaye indi fi li nga xamante ni moo di islam waaye indi na fi li nga xamante ni moo di bennoo ndax xam na ni baayam ba maamam ja Seex Ahmadu Bamba xaadimu rasul moo jële woon boppam rek du ni ana xaadimu rasul ki la waxul boppam waxu la ndeyam waxu la baayam tey jii nii boo ko nekkee moom bokk ci moom yi boppam tey bu génnee àdduna nga jël tànk yi mu jaaroon fa tabaarakallaahu kon bu génnee àdduna rek askan wi dinañ ko yëg te loolu moo ñu dalee ci sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke kon yàlla yàlla yokki leeram yàlla ñu yàlla taas ci barkeem fa tabaarakallah bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma ko waxee jëwriñ mais bu ko defee rek xanaa duñu ci sori dañuy ñëw rek bàyyi laak li nga xamante ni moo di xasaayit Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xamante ni moom la ñëpp di fajoo aajo mooy ñaanu réew mi mooy fa tabaarakallah ñaanu askan wi fa tabaarakallah tamit mooy ay œuvre yi gën a riche lu muy bàyyee muy tàgg Seydina Mohamed kon jëwriñ fa tabaarakallah rek nga jug nga baaxee ñu loolu الحمد لله عبد المبين من كونه ليبين على الكتاب المسدين ما جاني مني غني الحمد لله الحق المبين من كونه والقيدة بالمسبين ما جاء dal li Hallelujah. te

بتسليم للمصطفى المهدي لليمين macha allah Serigne Saliou jëriñ universel macha allah ci xasida yooyu nga xamante ni yëkkati nga ko jëmale ko ci muy ay ñaan fi tabarakallah jëmale ko ci sang bu baax bi ci njàngum leer bi xam rek ba xam macha allah daara la wala lan moo nekk ci ginnaaw loo xamante ni nii gi am nañ ko ci njàng yi. waaw jërëjëfati Serigne Saliou waaw dinaa tontu ci baat yi ndax bi ñu jébaloo ci cheikh bi moom Serigne Béthio jaamu Serigne dafa am ay ndigal yoo xam ni moom lay ñuy jottali daan ko jógee jëlee ci Serigne Saliou ci ndigal yooyu bokk na ci màggal gi nga xam ne moom la ñu jógee barki démb gàmmu gii ak yi nga xam ne bokk ci ñu jëmteelu kàddu yi ko Serigne Saliou wax ne ko waxal sa waa kër nanu fonk màggalu Serigne Touba gi nanu fonk gàmmu gi nanu fonk xasaay bi Serigne Touba gi loolu nag moom sëñ bi daf ñu cee teel a ñu jébbaloo ci moom chaque jour ñu jàng xasaay te di leeral ni moom Serigne Saliou ba mu wootee wooteem bu rëy gi jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la Serigne Touba def ca man ne euh, mi nga xam ne moom lañ doon jàngal moom dafa am tawféex bokk ci ndongo tarbiya yi nga xam ni ñoom la Serigne Saliou yaral boppam tey jii ñun ñu am benn wuute ak ñoom ndax Serigne Saliou daa joxe ab sas boo xam ni mu ngi tom mu ngi toll ci ay xasaayit ay lim ci ay xasaayit muy sas bi nga xam ni dañu képp kuy taalibe képp kuy nongo tarbiyaam na ko mokkal ndigal la loolu ca daara ja la ca xel kom mm. sëriñ bi nag moom suñu béytoo bi ñu jébbali ci moom li ñu jébbalu moom la tàmbali jàng xasaay ndax mu ñi ay ay dañoo jàng ay nasaraan ci école yi réew mi la ñu jàng mm. moom ñii tey ñu mën a dem ba jàngal loolu ak donga tarbiya sëriñ Saliou loolu suñu sat la loolu yëpp dañ koy santaatee sëñ béytu ndax moo ko waral moom wax dëgg yàlla bokkul woon ci suñu destiné jàng xasaay waaye sëriñ bi moom mooy def lu ko soob moom sëriñ Tuubaa mooy fekk ndaw moo xam ni loolu nekkul woon sax ci taxawaayam mu defal ko ko ci yërmandeem waaye lépp nu mu ko amee kat ci ànd bi ñu àndal seen bët. macha allah tabarakallah lool leer na kon jàng mi daal mën nañ nañu du cheikh bi du bàyyikoo ci cheikh bi la ak loo xamante ni seen Saliou moo ko def ci ay ndongo daara mm. macha allah ngeen déggee ko noonu gisee ko noonu waaye mu mel ni rek waxtu li nga xamante ni moo di waxtu bi day waaj waaye mu doonoon li nga xamante ni rek moo di hommage à kan ki nga xamante ni moo di sëñ Sidi Maxtaar ngeen àndoon ak seen xarit Cheikh Baye Baax li nga xamante ni nii moo di royo ci moom royo ci moom nag saa su nekk comme ni ngeen ko waxee woon ci njëlbeen noonu lay doxee mooy dañuy jël ab kilifa rek fa tabaarakallah bu ñu war a mën a waxtaanee roy ci moom wala ki nga xamante ni nii am na lu ñu war a mën wax ci yow rek muy mbaax askan wi muy mbaax ci réew mi muy mbaax ci diine ji muy mbaax ci jullit ji rek ñu indi ko ci fii ci moom émission bu màgg bi di roy ci moom ba tax na waxtu bi xaj na ni jëwriñ universel am na lan mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ni fa tabaarakallahu moom rek ma war a yëngati jëmale ko ci tàggatoo bi nga xamante ni mooy tàggatoo bu tàggatoo fa tabaarakallah waaw xanaa di sant rek sëriñ moom sëñ Béthio di ko ñaan mu yàgg fi loolu te gën a wér dañ koy sant santu xol santu cër santu lépp ngir dimbale gi ñu dimbale ba def ñu dëgg-dëgg murit mhm. ba def ci ñun sopp gi ñu sopp Serigne Touba def ci ñun sopp gi ñu sopp xasaay bi Serigne Touba yi da ci sant bu baax a baax mhm. maa ngi nuyu ci biir kàddu yi ngeen may dox suñu jëwriñ universel boo leen seen jëwriñu kuréel xas taalibe bi sëñ Béthio yëpp muy Pa Assane Diouf jëwriñ universel maa ngi koy siyaare bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam tey bëgg lool di ñaan sëñ Béthio yàlla fi lool te gën a wér jërëjëf Serigne Saliou waxtaan bi yi ma mooy Ndiaw Joxumpa ak Seydina Omar Thiam moom laa ko àndal ñu ay mbokku taalibe kenn gi moom Seydina Omar Serigne Saliou moo ko yar ca Daara ja moom baayam day taalibe sëñ Béthio ci woote bi Serigne Saliou woote woon ne jox leen ma ndaw ñu ma def ca ñoom la Serigne Touba daan def ca mag ñi. moom mi daa amoon daa bokk ci ñu am tawféexu seen Saliou yóbbu leen daara ci ndig ci ndigalu sëñ Béthio maanaam sëñ Béthio moo leen yóbbu daara seen bàyyi jox sëñ Béthio sëñ yóbbu leen daara ñu tarbiye ko fa ba mu wàcc di jàngal lool ak njaw mi moom c'est un technicien informatique moom itamit mu am tawféex fii ci réew mii ci Ndakaaru Njaay gii nga xam ni yéemu na lool fii la moqalee xasida yi. macha allah man mii di wax ak yéen. macha allah si mbéytu yaa ngi fi jërëjëf jëwriñ universel euh, Serigne Saliou ngeen dégg ko ci kàddu yooyu mbir mi leer na yaakaar naa ni ci moom ak ñi mu àndal ak ci li nga xamante ni moo di tawfeex gi bàyyi ko ci Serigne Saliou wala ci Serigne wala ci ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio baawaan ci ñoom ñii dafa tabaarakallaa mbokk yi lii la woon rek ñu indil leen ko fii nga xamante ni moo di site bu mag bii nga xamante ni moo di Dakar Midi point net tabaarakallaahu ah ngeen gisee ko noonu rek te jàppoo ko noonu te déggee ko noonu mooy comme ni ñu ko waxee seen émission bu màgg bii la seen émission bi nga xamante ni yéenay borom yéen jullit yi yéen askan wi yéen xarit yi yéen am di jàmm yi ngeen àndoon ceeg ki nga xamante ni moo di Cheikh Baye Baax ci lan ci ki nga xamante ni moo di naqar yi nga xamante ni tiis na ci réew mi dal na ci askan wi dal na ci lislaam gi dal na ci Sénégal waaye dal na ci li nga xamante ni moo di ci muridiyee li nga xamante ni moo di yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu di xalifaam bi nga xamante ni dafa nelaw di sëñ Sidi Maxtaar mbokk yi ay jàll la woon ñu ànd ci woon ak surtout bu mag bii di Dakar midi point leen fa tabarakallah ñu leen jox dig daje ak beneen jëm waaye ñu ngi gërëm techniciens yi caméraman yi monteur yi ak ñëpp képp koo xamante nii rek assistance la woon ci émission bi ñu ngi lay gërëm di gërëm personnel bi yëpp fa tabarakallah di leen jox dig daje ak keneen koo xamante nii rek yàlla baaxee nañu ñu war koo mën a fii ci plateau mbokk yi di leen jox di leen wax ba daanaako mu laan ila liqaa bu beneen yoon macha allah xayru naas imaamul anbiyaa